législative passée. Débordé par la montée en puissance du leader de PASTEF les Patriotes, le président Ousmane Sonko, la mouvance présidentielle est prête à se salir les mains pour empêcher la candidature du président Ousmane Sonko au rendez-vous du 25 février 2024, qui devra permettre au Sénégalais, ce rendez-vous devra permettre au Sénégalais de choisir son cinquième président de la République. les avocats de l'espoir d'une écrasante majorité de la population sénégalaise ont obtenu deux belles victoires face à l'État devant les impartiaux magistrats, le juge Sabasi et le juge Ousmane Racine Diom. Partout où le droit est dit, Ousmane Sonko devient électeur et éligible. Étant donné que la bataille est maintenant politique, les différents mouvements de PASTEF, les patriotes, n'entendent plus, plus laisser faire, car ceux, que nous avons en face sont clairs dans leur objectif, qui est d'écarter le candidat Ousmane Sonko en premier et les autres candidats euh, du parti PASTEF. À ce propos, nous invitons les Sénégalais et les à se joindre à nous pour dire non à cette nouvelle forfaiture qui risque euh, qui risque d'être la voie qui va installer notre pays dans la dictature, ou sinon même on dirait dans le chaos. Demain, jeudi, à 20h30, demain jeudi 21 euh, décembre, à 20 h de 20 à 20h30, une résistance pacifique sera organisée, je répète, parce que nous voulons que tous les Sénégalais se joignent à nous. Demain jeudi, 21 décembre à 20h30, nous demandons à toute la euh, population sénégalaise de se joindre à nous pour une résistance pacifique organisée partout dans le Sénégal. Ce que nous demandons, c'est d'être habillés en blanc devant vos domiciles, scandant les slogans de contestation. Vous devez, vous devez également vous filmer pour montrer au monde entier que le Sénégal n'est pas un peuple qui se laisse faire, c'est un peuple qui résiste. Personne ne devra bâtir notre pays si ce n'est nous-mêmes. Nous sommes à un tournant décisif de l'avenir de notre nation. Refusons d'être euh, de simples spectateurs ou de simples personnes qui vont raconter cette histoire, mais euh, soyons parmi ceux qui vont l'écrire. Sur ce, Mesdames, Messieurs, euh, je vous remercie. Ainsi termine euh, la lecture de cette présente euh, communiqué de presse. Merci beaucoup. waaw kon nag jërëjëf comme nag dafa am tuuti retard sans sans plus tarder on va remettre la parole à Soxna Awa Seck incha allah mu def la version wolof. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nii nuyu yéen ñëpp di leen ziar euh, man la Awa sekk bokk ci mouvement des handicapés patriotes euh, tey nag ñu ñëw fii ànd ak suñu kilifa yi comme tonton Mayabe wax na ko léegi jaruñ ci jaaraat mouvement patriote yi nga xamante ñoom ñëpp ñoo jóg jàppale pour président Ousmane Sonko ma ñëw nag di tënk. li nga xam ne sama sœur bi euh, Mbène Faye ñëw wax na ko ci version française bi ma ñëw bëgg ko tënk rek ci olof. Euh, tey nag li ñu fi dajale ñëpp xam nañ senegal euh, jafe-jafe yi nga xam ne tey moom la ñuy dund jafe-jafe yu métti li ci gën a métti mooy injustice. Sénégal nag ñëpp xam nañ ñu dafa tënku ci constitution constitution boo xamante ni ni suñu ay maam ñoom ñoo ko fi tëggoon wala suñu ay mag ñu ñu fi jiitu ñoom ñoo ko tëggoon bàyyi ko. ba tax na loolu moo waral ne kenn ci ñun fii amul droit nekk benn ethnie di tooñ beneen ethnie boo xoolee ci préambule bi ci préambule constitution bi Sénégal mu ci fa mu ngi constitution bi mu ngi ciy fàttaliku ne Sénégal est un pays souverain maanaam benn buur moo fi am mooy askan wi askan woowu nag tey jii basé wu na ci li nga xamante ni mooy culture am maanaam ay mbaaxam bay jàpp na ne moom mooy ciment bi nga xam ne moom moo war a tabax réew mi ëllëg askan woowu tamit doomam yi nga xam ne muy góor di jigéen xam ne seen bëgg-bëgg yépp mooy àndandoo nekk benn liggéey jël seen lépp jébbal ko Sénégal te yàlla rekk moo tax maanaam engagement patriotique loolu nag pour mu mën a am foog ñu am liberté pour mu mën a am foog ñu jox suñu respect pour mu mën a am foog ñu bañ a salfaañe suñuy àq ak suñu yelleef loolu yëpp bu ko yàlla bu bu ko bu ñu ko bu ñu ko delloowee yaakaar naa Sénégal dina am taxawaay bu rafet ndax euh, doomam yi fi nekk yëpp changer réew mi rek moom moo ko tax a jóg tabax Sénégal ëllëg moom moo ko tax a jóg ñun ñu bëgg a jëg nag combat boobu porté ko pour bañ puso bii bañ a réeree suñu ay loxo euh, constitution bi nag euh, Sénégal askanu Sénégal nag moom Euh, lenn tamit yitteel na ko mooy Union africaine maanaam Afrique yépp àndandoo doon benn ba tax na gis nañ mu ngi jokk ci euh, mu ngi jokk ci ba tax na mu ngi jokk ci instruments internationaux yu bari ci ak déclaration des droits de l'homme bi nga xamante ni tey ah, kuréelu mbootaayu xeet yi moom moo ko jiite muy organisation des nations unies Sénégal askanu Sénégal tamit leneen aussi tamit yitteel na ko muy àdduna bi yépp àndandoo nekk benn am jàmm am salaam doon ay frères ak ay sœurs ba mën a jokkalante kenn ku nekk respecté sa culture moroom ñuy demlante di dikkalante moo xam ci domaine yépp askanu Sénégal aussi tamit loolu yëpp bokk na ci yitteel ko euh, suñ ci xuusee sax xam naa dinañ bëri wala nañ jël temps bu bëri mais loolu kese passage boobu rek suñ ko xoolee dinañ xam ñun tey ji li nga xam ne moom lañ bëggal ëllëgu réew mi ñëpp xam nañ tey Sénégal mu ngi traversé moment yu difficile ñëpp xam nañ tey ji état wu Sénégal euh, euh, pouvoir bi tey dafa jàpp sénégalais yi loolu moo waral tey ji kii nga xamante ni mooy la parti Pastef ak le président Ousmane Sonko bi moom moo ko jiite tey muy subir injustice yu bari yi nii waaye nag parti Pastef ak le président Ousmane Sonko dañu leeral sénégalais yu lu bari dañu teg ci yoon wi nga xamante ni moom mooy démocratie bi nga xamante ni moom la Sénégal bëgg wala moom la Afrique bëgg parti Pastef aussi tamit dafa ñu dimbali ba ñu mën a jàmbaarloo ak état bi nga xamante ak régime bi nga xamante tamit moom moo fi nekk président Ousmane ko nag bari woon na lu mu doon dénoncé bi nga xamee kenn xamagu ko woon ba lan loolu moo tax ñu rajee ko de la fonction publique ci direction des impôts et domaines mais bi nga xamante ni nag raj état du Sénégal rajee na ko peuple bi ñoom ñoo ëlbatiku def ko député yóbbu ko ci pencum ndaw réew ma jox ko kàddu may ko immunité ne ko lépp loo bëgg a wax fii am nga sañ-sañ wax ko ba àddina bi yëpp dégg la un cinq ans après bi ñu paree. waa Ziguinchor jël nañ ko def ko seen première magistrature maanaam def ko maire dëkk ba ba loolu tax na tey bëri na tey ay maire yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ak ay député yu ñu ngi nekk fii grace au président Ousmane Sonko ak parti ak ex parti Pastef bi ñoom ñoo tax ñu nekk député nekk ay maire sant yàlla nag bu baax bi nga xamee ne tey ki nga xam ne mooy suñu président askan wi wóolu ko ak ñi ànd àndal askan wi wóolu leen fépp fu ñu joxañ ne fii la rek sénégalais yi fekk si leen fi Sénégal nag euh, métti na benn côté méttiwul ndax taxawaay bii nga xam ne ñun ñëpp taxaw nañ ko suñ ci àndandoo ñun ñëpp lépp lu ñuy xeex incha allahu rabbi bu soobee yàlla yonent bi fas yéene leen jot ci. mouvement yii nag nga xam ne moom moo fi taxaw muy mouvement patriote yi dañoo jóg ñun ñëpp àndandoo def nag benn say pour bëgg xeex dictature bii ñu fi bëgg a ndax bis bu ñu nangoo ñu installé ko fi ñun tey loolu suñu ngaañ lay doon ëllëg te dinañ am rus ëllëg suñu ay doom yi nga xam ne ñoom ñoo fii ñëw ndaxte nag senegal senegalu ñëpp la parti au pouvoir bii fi nekk amul kersewu jël euh, pouvoiru état di ko xeexee ay adversaire amul kerse boobu parti au pouvoir bii fi nekk rusul ëllëg bàyyi fi woy woo xamante ni ñeneen ñu fi ñëw dinañ nekk woy wu ñaaw ci ñoom loolu nag lañ bëgg ngeen ñëw rejoindre ñu ñun ñëpp ngeen jàppale ñu def benn say ndax li du xeexu la président Ousmane Sonko du xeexu le parti ex du xeexu kenn xeexu sénégalais yépp la ñu di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah demain suba ci 20h yéen ñëpp ngeen habillé en blanc kenn ku nekk taxaw buntu këram woo ay am di jàmmam woo ay dëkkandoowum ngeen yuuxu ci kaw ñu delloo le président Ousmane Sonko droit wam yépp ñu bàyyi jox ko ay fiche parrainage am képp koo xam ne détenu politique nga ñu bàyyi la nga